asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax fu ngeen mën a nekk ci biir réew wala ci bitim réew di leen euh, euh, dellusiwaat di ànd ak yéen ci regard 114 nga xam ne mooy bërëbu gëstu bërëbu xam-xam bërëbu jàng ak njàngale waaye bërëbu faj euh, xam ngeen ne nag doomu aadama li tax mu ni joddu taxaw wute ak mala yi ni ko yàlla waxee fa minhum man yem si ala rijlayni wa minhum man yem si ala arbain waaye sax wa minhum man yem si ala batnihi am na ñoo xam ne dañuy raam am na ci mala yoo xam ne ñeenti tànk lañuy ñuy doxee mais doomu aadama ni ko yàlla bindee mu ni jot du taxaw wute ak mala yi loolu li ko mën a yembal du dara lu dul yax yi nga xam ne moom la yàlla ràbbante ci moom euh, lii nag moom mooy colonne vertébrale boo gisee ñu indi ko tey lii yëpp pour mieux apporter plus de précision pour wan leen ni fii du xam-xamu du xam-xamu euh, waaye dañuy gëstu suñu kéemtalaay kattan su ko defee lii moom mooy colonne vertébrale nga xam ni mooy li nga xam ni moom la doomu aadama di njëkk am su nekkee ci biiru yaayam lii mooy njëkk a formé wu kon nag ngir mën a waajal leneen lu mu mën a doon kon nag lépp fa la nekk moom lañuy wax système nerveux centrale kon nag bu boobaa euh, lépp luy action moteur ak sensitif yépp fii la nekk moo tax ñu ne c'est plus que pénible donc d'être dépendant sur l'aide de quelqu'un bu fekkente ne da nga fay am problème ci yax yi dangay ngay dépendre ci keneen ah dëgg-dëgg faaw nit ñi di la dimbali lépp looy def dafay ànd ak wooy waaw da ngay def nii rek nga gis mu ne kaj kon loolu li koy waral euh, pour jox la ci benn misaal rek traité nañu fi malade boo xam ne fan yi ñu génn nee na ma toog naa weeru yàlla wax ne damay raam wax na dëgg fii boo fi amee benn sidit bu kepp rek ya da ngay delluwaat mala léegi di doxee ñeenti tànk mbaa ngay raam kon nag lii yëpp ay système la yu yàlla teg ñu bëgg cee xuus indi ci ay leeral problème yi nga xam te ne moo ciy am méttit yu tar yooyu euh, waa ji nee na ma professeur ma ah, mu ni ma vraiment méttit bi ku ko xamul yàlla ba ko yàlla mas a teg kon nag mu nekk ay douleur yoo xamante ni douleur yu intense la ci diggante yax yi nga xam ne li fi mën a dal doomu aadama bari na hernie discale hernie hiatale ay sidit yu kepp ay cartilage yu jeex ñaari yax yuy bombante di laalante mettit bi tar ma liggéey garab gu ñuy wax DTC 9 ah ñu ne ma njaay ba léegi doyagul ma indi DTC 10 ñu ne ma njaay ba léegi mettit baa nga fa ma liggéey DTC 12 gis nga ko mu ngi nii kon ñi ko xamul moo tax ñuy wax waaye ñi ko xam laal ko xam nañ garab gi bu baax a baax a baax kon nag pour ñëw fii dafa am set vertèbres cervicales hmm, nga xam ni moo nekk ci kaw bi ci njëkk nga xam ni moo nekk ci fii ci doq gi téye bi loolu la ñuy wax atlas am na bu ci topp moom la ñuy wax axis noonu lañ ko mën a limee benn par benn ba mu wàcc suuf pour wal na ne amul dara lu ñuy làmbatu di la xamal ne nag yow miy wër di def ay analyse ak yu kenn xamul loolu analyse li mu mën a feeñal mooy machine bi problème rek la mën a feeñal mais mënul régler sa problème kon nag dëgg-dëgg ay massage ak yooyu yëpp baax na ci waaye nag massage mooy damp rek ci kaw yam mais problème baa ngi si biir sidit yu sedd yu yu séddaliku wala ñaar yu rabbaloo wala boo xam ne dafa dafa yax yi moo ŋaang kepp ko ngay yëg sidit ngay yëg mettit boo xam ni mën nga koy yëg ci suufu tànk yi fekk ca ca doq ga la wala mu nekk ca euh, li nga xam ni moom mooy euh, euh, ndunk ndunkurunk gi muy digg ginnaaw gi kon nag mbokk yi ñu xam ni pour jox la benn misaal soo reyee xar wala yooyu suñu mbokki njóobeen yi ah nga xam ni léeg-léeg nga jël benn yàpp di ko yëy da ngay yëy ba sonn Euh, euh, du du du du yàpp yëpp lañ mën a yëy day dëgër dangay ngay da nga naan lii sax euh, tàngaay bi mënu ko ñoral léeg-léeg nga yëy ba sonn teg na le façon tissu yu dëgër yooyu la yàlla def fii mu nekk ay ligament benn bu ci nekk diggante yax bu nekk yàlla dafay teg benn disque doog a demaat teg beneen vertèbre teg benn disque diggante C1 ak C2 rek la benn disque amul mais li ci des yëpp yàlla da teg disque pour yax yi di mën a bouger di def ay mouvement loolu yëpp dafay nekk ay luy gàllankoor doomu adama yi kon yow mi am jafe-jafe jooju dëgg-dëgg na ma topp ci vidéo yi ñëw lii dama doon ubbi rek pour wan leen waaye feebar yi ñu ci mën a lim ci wàllu yàq tey jii du jeex te moom moo sonal nit ñi rawatina ñi nga xamante ne dañuy def ay liggéey wala yenn mouvement yu involontaire yi kon regard 114 lay amee ci kattanu borom bi subhanahu wa taala euh, ngeen topp ñu ci yeneen vidéo yi di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu